tegu ci maaraam jusqu'à présent sénégalais yaa ngi xaar numéro turu banque bi ak numéro compte bi ñu versé vingt six milliards yi quarante huit milliards yi jusqu'à présent ba tey may wax ak yow ba mu commencé politique ba léegi li mu wax li mu ba li mu dala wax di ko jiiñ nit ñi ba léegi kenn tegu ci baaraam kenn mosu cee teg baaraam te kenn du ci teg baaraam est-ce que war nañ mën a continuer ci loolu def na ko nit mu mu jàll mu dem def na ko keneen mu def ko Bambey ñaa Bambey ñaa na ko du ma ko nangu dig ma indil preuve yi. mais ku indi preuve ñu di ko gazé di toj ay vitre otom mais loolu it. ku ñu convoqué tribinal nga génn wër Mbàkke. mais c'est un acteur politique defal ndànk ñu daj ci magasin c'est un acteur politique aussi. ah kon acteur politique lu la neex def. ah non même pas je dis ma yor sama magasin teg waxu waxuma loolu non de loolu la nga wax da nga ne c'est un acteur politique. mais Abdoulaye Wade dañu ko convoqué mu jaar fu ko neex. c'est un acteur politique. Ah. nee naa la toujours en matière de maintien de de en matière de sécurité le maintien de l'ordre c'est pour permettre aux populations dem ak ñëw ñi ci seen yoon newul. mais mu ngi doon dem. fan la doon dem. tribunal su génnee tey tey tey du dem tribunal. du jaar du jaar fi mu bëggoon du jaar. bu tëj mais ko neex jàll l'essentiel mooy ne yegg tribunal rek monsieur Fall. dafa ndànk dafa ndànk dafa ndànk dafa ndànk parce que dafa am loo xamante ni nañ ko waxte dee. muy. li li li li li mu def lépp c'était du cinéma et il était l'acteur principal. il jouait avec la population il voulait manipuler la population et se victimiser parce que xamoon na ni yorul preuve. mais na wax sénégalais yi ne leen yoruma preuve Mame ñaa na ma baal dis nga dëkk bii dëkku jàmm la su baalu woon àq ba mu waxee li muy wax xam ne li muy wax dara du ci dëgg wallaahi su taxawoon baalu àq Mame Mbaye Niang ñu baal ko mais def ko. Ousmane Sonko baalu àq. mais bien sûr pourquoi pas dëkk bi soo tooñee da ngay baalu dafa tooñ il a tort wallaahi il a dafa tooñ. dafa tooñ koo xamante ni dafa am ngi ko dégg keroog mu naan am na doom dafa am jabar ami doom amu nangam li muy dund mais xanaa Mame Mbaye amul doom c'est-à-dire aujourd'hui si si si Mame Mbaye Niang si Mame Mbaye Niang n'avait pas lancé lavé son honneur ay doomam fu mu dox ñu ne ko sa papa sàccatu 29 milliards la dafa sàcc suñu 29 milliards. Mame Mbaye Niang à chaque fois mu ngi koy dégg. non dama ne il a lan dootu ko dégg dootu ko dégg déggoo li ma la dootu ko xam nga tax ma la dootu ko dégg. waaw le principal opposant du chef de l'état du du du du du régime c'est débiné daw comme jigéen waxat dootu ko déggati Ousmane Sonko dootul jaaraat ci kàddu googu que Mame Mbaye Niang dafa sàcc suñu 29 milliards dootu ko waxaat ci àddunaam pour te dire il a lavé son honneur. il a lavé son honneur. il a lavé deux fois nit nag. il a lavé deux fois. j'ai dit il fois je veux gis nga nit suñ la jiiñee dara te mu wóor la ni du yow fexeel ba setal sa der parce que soo setalul sa der Mame Mbaye Niang su tetalul loon deram fu ay doomam génn ñu ne ko sa papa sàcc na suñuy benn neuf milliards. école am bi ay doomam di jàng ñu ne ko sa papa sàcc na suñuy 29 milliards ay jabaram fi fi fi dee ñu ne ko sa papa sa mais tey nit dootu ko waxati parce que setal na deram ba mu set wecc Mame mbay de gàcce ngalaama moom mais am na ko war a desal setam am na keneen ko war a desal moom Ousmane Sonko dafa am feneen fu war a setalee deram na fexe ba setal deram foofu su ko deful. fu mu dox ci àdduna ñu ne ko violeur nga. mais est-ce que dossier bi dafa jël benn envergure politique. pourquoi. Et quand je parle de ça je m'explique. mooy dañuy yem en première instance ñu daan ko deux mois avec sursis hmm. avec de deux millions de francs CFA on pourra dire gulet ci wàllum diffamation ñu gis am Mame mu bind ci constitution bañ nga ko ba ne gulet gulet oui gulet parce que kon xam nga ni c'est pas normal parce que ñu ngi ko soog a gis c'est parce que c'est waaw mais mais mooy yeggale aussi Moussa Fall mais mu pose beneen bi mooy ñu gis Mame mu bind ci constitution tëram mu ngi rafetlu di saluer la justice sénégalaise ni mu raxasee deram à un ko dem woote un point de presse. ne képp ku yaakaar ne Ousmane ko war nañ ko mun a fal yaa ngi nax sa bopp interjeté appel mais loolu. a expliqué mais kaa ñu waxtaan. Ah, waxtaan waxtaan dañuy waxtaan dañuy waxtaan ak sénégalais yi. appel sur la peine. oui c'est le procureur de la République. qui a interjeté le parquet, le sur la peine. oui Mame Mbaye li mu interjeté appel si dommage et. intérêt yi. mais foofu dara amoo fa évolution. non déglu déglu non tu pas l'argent. ah mais loolu la waxoon. c'est pas l'argent parce que ñeneen ñi y a ce qu'on la jurisprudence des des journaux l'As et et l'autre mhm. parce que ñooñu dañ leen amande le concept est important en matière judiciaire. mais pourquoi faire un point de presse pour dire que. j'ai dit le concept et important en matière judiciaire ñii dañ leen amende. nit fii ñu def ko dommage intérêt yaa ko wax léegi c'est bizarre c'est bizarre pour les mêmes faits on porte plainte pour les mêmes faits parce que en matière judiciaire on juge des faits on ne juge pas des personne on juge des faits sur les mêmes faits ñu na ci ay nit ci ay peines yu bokkul xanaa liiruñu droit xanaa wax ñu droit foofu la procureur sukkandiku ne dañuy liir droit parce que le procureur n'a pas le droit d'interjeter appel sur le dommage intérêt ça ne le concerne pas. Mmh. il a appel sur la sur, sur la peine et peine bi li mu interjeté appel ñu ranger ko ci même peine yi nga xam ne daan nañ ko journal laas ak ñeneen sur moo loolu mooy jurisprudence injure waaw da ci dugg injure publique diffamation injure publique. am na injure à qui am mais bien sûr il a injurié. à qui à Mame Mbaye Niang. <laughs> Mame Mbaye Niang plusieurs fois moom tamit. plus les plus il a injurié les magistrats il les a traités de tous tous les noms publiquement c'est des chefs d'inculpation yoo xamante day dugg ci dossier xam na ko donc où est l'affaire politique là lan moo ciy politique. mais politique mooy moom moo ci doon déglu ma wax la déglu ma wax la politique mooy kontaan naa ñu raxasee sama der dem def point de presse ne ku yaakaar ne Ousmane Sonko mi war na mën a falu yaa ngi nax sa bopp. a parfaitement mais kooku. mais xam nga tax nga mën nga toog fii xam nga lu politique xam nga lu xam nga tax moom ba mu koy wax tegu ko ci appelu procureur de ba mu naan ku yaakaar ne Ousmane Sonko war na mën a falu. yaa ngi ko teg. ku wax weddi boppam daw ni jigéen ñu ne la da nga ne am naa preuve nga ne amoo preuve koo xamante ni jotagoo réew teg ko ci ay fen soo jotee réew ci ay fen nga koy nga koy gérer donc kooku attanul réew mënul téye réew parce que jotagul réew ni mu bëggee jotee réew ci ay fen la ko teg ci wax lu dul dëgg la ko teg ci ay jiiñ ay nit la ko teg te dara du ci dëgg kooku est-ce que attan mérite jot mérite na jot réew est-ce que kooku dina ku yaakaar ni dina jot réew yaa ngi nax sa bopp parce que yàlla du ànd ak kuy fenn parce que soo nax soo taxawee di wax lu dul dëgg. c'est le chef de l'opposition. non est-ce que chef de l'opposition signifie mentir. kon opposition ah, dañuy fenn. non je de dire que l'opposition c'est des menteurs. c'est chef de l'opposition li ma mën naa ko réitérer. waaw da nga ne Ousmane Sonko mais c'est chef de l'opposition. déedéet peut dama ne. Ah dama ne politique ne rime pas avec la mens le mensonge. waaw yéen a ko gis. non dama ne le politique ne rime pas avec le mensonge politique àndul ak fenn c' est quelque chose qui très noble mais malheureusement nous sommes dans un pays yoo xamante ne fenkat yi la ñuy déglu. mais ñaari kàddu Mambay ñaar yu wute yi. ñaari kàddu yu Mambay ñaar yu wute yéen. mais Mambay ñaar a ku dem sangu ba set. Mambay ñaar a des conseillers. yaa tey conseiller moom li mu bëggoon moo ñu setal deram te der ba set na der ba yoon setal na ko parce que ki waroon ñëw pour ñu setal ki waroon ñëw andi preuve yi daw na dem làqatu ji moo tax der ba set na làqatuwul dafa feebaroon lu ko daloon ah dafa feebaroon nee feebar waaw lan moo ko dal ah, wax dëgg si yàlla gis nga digganteem ak takk der yi aussi moo non le malade imaginaire tu as lu tu as lu le malade imaginaire Ousmane Sonko c'était le malade imaginaire ci feebaram boobu muy wax lacrymogène yooyu ñu tuur ko nee na moom dañ ko tuur acide ba dañ ko buggoon empoisonné nangam sangam lacrymogène la te moo ko décrire moom moo décrire li nga xam ni produit yi nga xam ni la ñu fekk ci ay yéreem ba tudd ci CN produit yooyu dañ koy utiliser. pour ay ay anti émeute ay ay ay ay dispersion euh, de foule ci lacrymogène lay ne produit yooyu soo to su suñu dóoree lacrymogène nga nga nga noyyi ko koy day xeeñ sa yére day des ci yëre bi. mais moom nee na gisuloon. beneen mbir xamuloon fu mu nekk et beneen mbir beneen mbir. ma won la ko euh, nga baal ma de nga baal ma na ma gars yi baal. depuis quand nga nekk nag. Euh, spécialiste <laughs> ci wàllu wér non c' est parce que c' est parce que c' est parce que. Ah? non defal ndànk rek. Ah, nekkuma mais depuis quand nga nekk spécialiste ci non non nekkuma si spécialiste kii de expert tox gi nii. moon ko sa waa labo bii la yóbbu woon ay yéreem ci li mu wax. am information mais moo ko wax nee na dem leen googal googal googal. ngeen seet ngeen seet Expertox bien sûr Expertox a ngi nii lii fii la yóbbu woon ay yéreem zoomal ma fii ay produits alimentaire lay testé li nekk ci produit alimentaire yi moom lay testé nañ ko zoom ma won leen. nga yëkkati ko bu baax mën ko zoom. zoomal zoomal ma xool zoomal ma lii. Mhm. fii mooy Expertox mu ngi nii. ay produits alimentaires lay tester ci domaine de compétence am analyse biologique médicale par rapport aux produits sanitaires du dëgg beneen mbir beneen information boo xamante ni duñ ko wax nit ñi ñoom duñ ko wax nit ñi mooy expertos bi amul lisance pour mën a tester des pour mën a faire def ay analyses chimique par rapport à des produits toxiques. ok n'est-ce pas. Mhm. parce que dañ ko condamné il y a plus de trois ans pour ça donc mi ngi nax sénégalais yi encore une fois mi ngi manipuler sénégalais yi mais heureusement moom moo joxe ay produits xamul luy toxi toxicité. mënu ko wax joxe ay produits produits yooyu mu joxe produits yooyu mu joxe produits yooyu la ñuy defaree gaz lacrymogène nee na produit yooyu moom la xeeñtu ay bëtam di jooy mënul gis moom la tuur moom la noyyi mu am problème respiration moom la moom moom moom moo tax euh, euh, gorge bi wow man laaj la yow Bamba yow mi dem ci terrain bi comme journaliste suñ dóoree lacrymogène sa bët du jooy. day métti. day jooy. su sooy. nooñ mais ku nekk gis na Ousmane ko ci état bu mu nekkoon aussi. non dama ne ban état bu mu nekkoon. bu doy war. ban doy war. bàyyi ma continué diggante ma Guy Marius Sagna bàyyi bàyyi diggante moom moom bi mu boo ko seeree ba ba côté damm. <laughs> n'est-ce pas. loolu fi nekk di accuser kenn. wala leneen mais pour te dire que. situation boobu. lacrymogène yooyu yëpp moom mu gis ko ne ba mu ko xeeñee ba mu ko duggee produit boobu dafa daw biiram ñun de lacrymogène yàq mun nañ koo naan yàgg nañoo naan lacrymogène te musul daw suñu biir. ok moom ba mu dawee biiram xanaa daf ko wàcce ci oto bi na ko wax sénégalais yi te aussi na na ma na ma ñi ma saytaan kilifa du waxee yenn waxi day ormal kàddoom. moo tax ma naan dama nit ñi jéggal parce que yenn kàddu yi sax man rus naa di ko génne sama gémmiñ comme moom ni mu koy génne mais puisque dafa bëggoon laal sensibilité nit ñi moo tax mu dudd fi biir bu yëngu walla yooyu c'est mal barré daf ko rate mais li ma bëgg wax rek mooy ok loolu dal ko mhm. benn fan la def ca clinique ba yeneen jour yëpp fanaanu ca fanaanu fa fanaanu fa ba keroog muy dellu si waat foo ko foo ko teg. ba keroog muy dellu si waat foo ko teg monsieur Fall aussi. ba keroog muy dellu ah, si waat waaw mais liggéey foo ko teg aussi parce que boo boo boo teggee dara. xam nga fu dara ma xam xam nga fu ma ko teg oui. foo ko teg Ousmane Sall Ousmane Sonko a montré aux Sénégalais qu'il ne s'est pas changé en une semaine d'hospitalisation yére bu mu soloon ba muy dem ci clinique ba moom la sol jour bi muy génn ba jour bi mu defee. Euh, interview am boobu ba def ci nu mu ba defar perfusion boo xamante ni. Euh, amul euh, amul aiguille amul dara. n'est-ce mhm. benn jour la fa toog dem ñibbi këram. n'est-ce pas. Mhm. ba jour biñ koy euh, defalee interview bi monté ko théâtralisation ñëw teg donc il faut qu'on arrête de manipuler ce peuple là.